اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من الشهر والنسوان فاكتبه منا على التمام والكمال والمحسب من كل الإلحان فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تواخذنا يا مولانا أشقنا فضل من قرأه موديا حقه مع الأعداء والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمانة ولا تقتم لنا بالشر والسقاوة والدلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا عنا من القفلة والكسلان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 وارحم جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا خيرنا وفي القبر مونسا وفي القيامة سفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بعناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بسفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين أجمعين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روحي اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روحي اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روحي سرين اللهم بلغ صواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روحي سرين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 wa sarri sinrin wa sarril xalqi insihim wa mahjinihim wa sawaatu sumiyallahu tawi lana umrana sahi lana badanan wa hablana rusda wa tawfiqi yallahu tawi lana umrana sahi lana badanan wa hablana rusda wa tawfiqi yallahu barke Sëñ Tuba yaa baam mu yàgg ci kanam njaboot gi yàgg a taxawee si mbir mii sagal na famille bi yëpp fa tabarakallahu lii mu def dafa rëy lool mënoon naa ne fa mu nekk ñaan mënoon naa téléphoné mënoon naa jàpp ci kenn ci njaboot gi yabal la xam nañu xataayu jamono xam nañu itte yi xam nañu tam fii réew mi toll waaye dëgg-dëgg mbir ñor la mënta weesu doxaliin wi kon nag nun ñi nga xam ne bii nun la ko defal nun rëy na ci nun lool ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla mu yàgg fi lool te wér yàlla bu la kenn ëppale ci barkeb maam Cheikh Issa bii bu la ci kenn ëpple sagal nga dëkk sagal nganu sagal famille bi sagal taalibe yi ci dëkk bi yépp ci subaak léegi ku ñëw rekk ana sëñ bi ñëwagul lay wax ndax rafet njort ci ni fokk nga ñëw ndax sa yëg ci bis bi sa considération ak sa fonkeel ak sa delloo njukkal góor a saa ak njabootam gii nga xam ni fa mu tegoon tànkam rek lañu fas yéene teg seen tànk wax naa ko léegi paate nee naa ko bu ñuy wax mbuus deful lu gën pepp maanaam nit nekkul ci lu gën ne fa nga war a ne te ne ci li nga war a ne ne ci li nga war a ne nettali naa ko léegi paate ma ne ko sëñ Cheikh Mbacke mu baax ma ba mu demee gane ji sëriñ daam Abdourahman Lo ak teraanga yu mat teraanga sëkk yendoog moom ba ngoon te way juróom wa ak yeneen doomi sëriñ tubaay yépp mu def ci ñoom alxuraan dafa wax sëñ Cheikh Mbacke ni ko tey dama bëgg nga wax ma loo gën a bëgg ma ñaanal la ko yàlla ci barkeb sëriñ Touba sama sëriñ ba sa yàlla defal la ko mu ne ko ñaanal ma ma ne ci li ma war a ne rek ne ci li nga war a ne rek mooy mbir mooy mooy tax nga am xel mu dal mooy tax nga ne ci sécurité mooy tax nga nekk à l'aise ne fi nga war a ne mooy tax a mucc ndax wax naa ko léegi paate ma ne ko yàlla dafa bind xar ak bëy ni leen ca kër ga bind till ak bukki ak yemel ni ñoom nii leen ca àll ba ku ci ne fa nga war a ku ne ku ci ne fa nga war a ne rek mujj waaye bukki bu fa bàyyee àll ba ba jóox si fii ci dëkk bii yet yi dal waaye xarit bu fi bàyyee dëkk bii jóox ca àll ba bu xefee doon réeru bukki ak till kon kenn ku ci ne dangay xam fa nga war a ne nga ne fa te xam la nga war a ne nga ne ca loolu mooy tax mucc mooy taxa ne ci sécurité mooy taxa amit xel mu dal loolu nag yàlla dogal na laaw la cat yéen a ngi ci yal na jëm kanam wax naa ko léegi sëñ Fallou mii sàll ni ko góor fokk mu am lii ndax lii la jëw lii la jiwoon fokk mu sax lii la leble woo it magul ci sët yi Babacar Diop Babacar Diop daa jur daa jur Baara Saabi Baara Saabi jaboot Babacar jur Basir Diop sama baay Babacar Diop jur ñeneen waaye moom rek moo daan gaari fee oto sarse ko ba mu fees ànd ak jànkati xasaay jeeg bernde yi wuti saabi xoona ngir màggali bisub kër Diop saxal ko loolu fokk yàlla fay ko ko loolu fokk yàlla fay ko ko moo tax yéen ñu ngi leen di ñaanal yàlla bu leen cat topp yàlla na ngeen mucc aaro yàlla na leen yàlla taxaw ba ngeen àgg fu ngeen bëgg a àgg fi seen baay tegoon tànkam rek yéen a nga teg seen tànk loolu yal na yàgg lu ngeen lu ngeen def lu dul lii seen lépp ngeen jël jox sëriñ bi lu ngeen yaakaar ni ak bëggam la ngeen ne lépp lu ngeen xam ni bu ko yëgoon bu ko yëgoon ni yéen a nga ca def ngeen ko mbaa wax ngeen ko mu ni bu mu amati ngeen moyu loola leneen lu ngeen def lu dul loolu rek nekku leen ci li seen baay bëggoon kon nag yéen a nga ci yal na leen ci yàlla saxal te musal leen ci ndog ak pakk ci barke yonent bi barke Serigne Touba Xaadimu sol barke maam Cheikh Issa Diène ak um njabootam Serigne bi ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm famille bi defal nga leen lu rëy lii tuutiwul de fa nga jóge budé Touba la salum dee Saloum la fum la mëna fekk bu bis bi joté nga def déplacement té déplacement bobu ñu bëri dinañu la soxla ci bis bobu jóg pour yow nga won leen ginnaw ñu bari dinañu yëkëti seen ad ya def seen poste fas la yéné gis ngir xiyar la nga won loolee ginnaw du doy waye ku jàppandi ci njabot gi rek nga ni ko nan dem déplacement boobu jëmmi yàlla kese kese kese ak sa waajur wa ak ni ko góor a defoon te ku ku la fonkal sa waajur nga fonk ko ku la jàppal sa waajur nga jàpp ko loolu kese kese kese moo waral lii waaye carburant sax mënuñu mënoo fee jële lu ko mat fii te taxulaa jóg kon xam nanu li nga nu defal jëf nag lu mu rëy rëy rëy ñi ngi ko defal bu ñu xasee xam jëf ja tolluwaay ba yóbbu seen mbég fu toll ni na jëf ja toll rekk maanaam wàcc nañu mënuñu laa fay waaye yàlla mi am pay yàlla na la fay ci barke maam Cheikh Issa barkeb sëñ Youssou Dieng sunu magum taalibe ngi nii di sëñ Amadou Matar Guèye taalibe njenn yi fii yépp mooy sunu kilifa wérul bu yàgg ba léegi waaye mi ngi nii soox ndax bëgg mën a teewe ci bis bii ndax xam li bis bi doon ci moom moom it ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di gërëm alaaji Mamour Fall mi nga xam ni moo jóge guumul ànd ak oustaz ak njabootam sant xale yi nga xam ne bi ñooy mbokki taalibe yi ànd ak Youssou di liggéeyu Serigne Touba yi bokk ci daayira yi ñuy liggéeyal Serigne Touba fu ñu toll te di ko jaarale ci alxuraan ak xasidaam yi teg seen tànk fi ñu ko war a teg yar ak teggin akuk taalibe loolu sëriñ bi ñu ngi sàkku boo jàngee xatmu bi ba pare nga ñaanal nu ñaanal leen ñoom ñëpp te nga ñaanal nu fanu gudd ànd ak wér nu yàgg fee daje suñ moo Guèye di wëllëreew góor a saabi ak wëllëre yi fi ne mbay jóoba ngi fii daam di bokk yi nga xam ne bii ñoo bokk askan wi ñëpp kenn desul wëllëri yi kenn desul sëñ Fallou Sall kullim romb waaye kenn desul maa ngi léegi seen léegi léegi fa tabarakallahu sëñ pay Faye a nga nële yore jàkkay sëñ Moustapha Bassirou ak kilifa yëpp fa tabarakallahu wàkk soxna Faati Mbàkke ñoom ñëpp ñu ngi fii waa waa sëñ Modou Mbàkke ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaare fa di njabotu sëñ bi ñu ngi ziyaare ñëpp fa tabarakallahu jere jërëjëf waaw a sëñ Modou Fam imamul akbar ko bolé ko ay teranga yu mat teranga jang fa alquran jang fa xasida sëñ touba yi lu bari xolam sedd guuy té lolu jëmmi sëñ touba kese kese kese motax ñu def ko way li den taxul fa tabarakallahu sëñ Tuubaa mi nga xamni bi lebal do la ni na bu lay fay do la ni boo ko lebalee kër guddi la lay fay foo la neex xalangu te doo gisu naaj yal na leen sëñ Tuubaa fay kon fa tabarakallahu ñu sant yuusu paate njaboot gi ci kër gi yëpp sëriñ bi ñi nga bëgg ñu demee ñu doxale ni ñu ngi ko ni doxale bu ñu wàccoon yoon damay ñëw jéem leen lijjanti bu ma ci mënul dara ma ñëw ci yow waaye rakk topp mag doom topp bàyyi ni ko sëriñ bi digle woon ci loolu rek la ñu ne maa ngi lay xamal ni la mësuma fee dikk ngir defare du ci góor ñi du ci ñoom foo leen fekk rek ñu ngi doon li leen sant muy doon benn kenn ku ci ne sa moroom gënal la sa bopp loolu nga leen digal te loolu ci lanu ne kon loolu fokk ma seeral leen ko ndax bu ñu nekkoon ci leneen bala cee kenn sonn maa nga ci jot ma jot ci mbaa ma sonn ci kon maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci noppal googu ngeen ma noppal te sëriñ bi xam na ni ci njaboot gi lu ci laal dinaa ci jéem la ma man lu ci lu ci rëq lu ma ci tële ñëw ba ca moom ndax am na fu ci jaaroon ci biir njaboot gi fa tabarakallahu ba ma demee ba ànd ak njaboot googee teew ca kanamam la ma bëggoon mu demee ni demee na ni kon ñu ngi lay sant di la gërëm di ñaan nga yàgg fi te wér ci barke sëriñ Touba yàgg fee ñëw yàgg nu fee fekk nu yàgg fee daje tey daal góoru saa bi moom fa mu ne xolam sedd na ndax li mu bëggoon lépp daje na fi bokki boppam ay wëllëreem njabootam booloo doon benn sëriñ bi aku njabootam teew loolu rekk la bëggoon loolu yàlla defal na ko ko yàlla na yàggate sax mbokki taalibe yi seen mbokkum jullit seen mbokkum taalibe moo leen di nuyu <clears throat> nuyo bi gën a sell ci lislaam di leen sant di leen gërëm nuyo boobu ñu ngi ci jiital sang yi nga xam ne ñu ngi ci biir te jur ñu leen wan ràññee muy sëriñu bi sant Mbàkke ñoo ngi koy siyaare di fab nuyoo bi di ko teg ci loxoom mu jot leen ko njaboot gi gépp ak waa dëkk beeg ñi fi teew ñëpp ah, la ci des nag ñëw naa fi ci ndigalul sëriñ Seex Jenn mi nga xam ne moo fi nekk ci bopp kër sëñ Yuusu bi may ñëwit maa ngi ànd ak sëñ Mbay Jenn ma lee sunu rakk la ñoo bokk bàyyi ba ñëwee ma fekk sëñ Fallou jenn mii mu jóge Mbuur moom it sëñ bi sëñ Fallou la ko duppee ñoo bokk waajur ma ànd ak sëñ seex Sourang Male ku ne xamal na diggante sëñ seex Sourang ak sëñ Youssou foo mosaan gis kii gis ka ca des mbaa boo ko gisul boo ko laajee dina la ca wax loo xam ne du tuxu ñu ànd ci ak taalibe ak yar ak teggin ak di jëm fu toll nako waju waaju ñu defe ñu jëmé ko ni ànd ak Abdou salam muy sama taw mo nek na le and ak señ bay ño fas yéene jang bi andal tamit yene njabotu señ yusuf gep muy gor muy jigen muy mak muy ndaw bis bi bu nu sañoon ñoom ñëpp ñoo fi maase teew waye lolu yalla mayu ko kenn waye na kër gi démé na no xani lepp ben la fu kenn teewal fa ñu ci des ñu ngeen gisul ñu nga feneen ci lu mel nii teewal nu fi ñun ñi ngeen gis bin ñoo fi teewaleen ñi ngeen gisul lépp benn la kon ñu xamee ko noonu sëñ seexit lu mel nii la génn dem ca dongo yi ca kaw doxi fa ay yitte moo tee mu ñëw da daaw teew si woon na fi ñu leen di xamal ni sëñ góora moom mën naa ni góoram sëñ yuuso woon jàppan na ko jébbal ko boppam jébbal ko alalam jébbal ko njabootam loola ba tey jii dara tuxuwu ci kon moom lam bëggan am na ko mooy nekk ci lu baax ba jóge fi dem àjjana loolu rekk la bëggan te yàlla ak jëmmi sëñ Issa Diène defal na ko ndax wax na ni bépp tali boo xam ne yaa ngi wuyoo jenn sa mbir mépp moom fii rekk la dégg naa ko sëñ Yuusu ba tàyyi nee na borom jenn da daa wax naa am naa kartan am naa saabu am naa ndox seet bu ma jàpp seet mbaa xottiku rek waaye bala ngaa dem moom day seet wicc boo xasee dem nag lépp jeex na kon ku ci bokk war ngaa am melo wooy doxee war am lu ne fi yow loo xëy ndax fóot kat métti na rawat na fóotum euh, wàlliyu kon nañ doolee góorgóorlu bu baax ñi nga xam ne ñooy njaboot sëñ góor tamit ñu ngi leen di sant ci njiital paate mi nga xam ne moo ci mag ci góor ñu ngi leen di sant bu baax ndax fa seen bàyyi tegan tànkam ci kër gi fa lañ teg seen tànk ñu ngi ñëw ñu ngi joxe seen alal ñu ngi déglu ndigal te di ko jëfe ndax kër gi yaakaar naa du ma fi gëj tey bu ma ñëwee du ma téléphoné waaye dugg ba fekk fi leen loo naa euh, suppi suppi leen ko wax dëgg yàlla dogalugul ma dajeeg moom bu fi amee yàlla dogalugul ma dajee moom kon loolu sant yàlla ndax mel na ni bu fi amoon ñoo ko war a jubbanti. kon bu nu yàlla suturaalee ba yàlla amu fi war nañoo sant yàlla bu baax a baax ndax yombut ndax góor kenn du ni jabootut kaar macha allah yàlla na ci yàlla def barke. kon boo xoolee ak gone yi léegi nii soppiku ni mu yombee boo dikkee xool fii ko fi leen loo naa déet war ngaa sant yàlla sant ko moom itam ndax lii rek la bëggoon kon nag yàlla na ko yàlla fay moo sëriñam ba léegi laa koy nettali ci saal bi man leen bi mu làqoo bi ñu si sëñ Youssou wax ko ko Baxdaad lañ fekk. mu woo ma jógee sama kër mu ñoom na daam daam lu rëy la xew ma ne ko sëñ Ba jàmm la mun na mbirum góor a akat lañ wax ma ne ko ci lan muy dafa dem Touba ma ne ah sëñ bi loolu da doy na waar mu ni waaw ni tekk ci lan ni tekk ni tekk ba mu yàgg mu ah fekk leel day bu soobee yàlla moom laa koy booleel moom lañ koy dencaale ak kaala ga yàlla dogal muy jëla bi bu weex tàll te ku ne xam ne couleur weex moom jàmm lay tekki ci foo mën a dem kon mel na ni fa jëm am na fa jàmm moom ñun ñi fi des ñoo amuk jaaxle kay ba xam lam lam am ñun daañu ko moom déet waaye moom lam bëggën am na ko kon nag nañ góor teg suñ tànk fa mu tegan tànkam bëgg lam bëggan jàpp fa mu jàppan di xool fa mu bu buñ ko defee téggi wunu yoon wi fétaluñu yàgg-yàgg daañu yàgg ci dëkk ba ni góor a àggee yàlla nañ ci yàlla jàppale ndax dulu lu yomb waaye yàlla moom ku mu jàppale la nga bëgg di ko am kon nag yàlla nañ yàlla jàppale ndax góor a amal nag woyof amoon nag taalibe amoon na yar amoon nay teggin boo musaan ñëw ci kër sëñ bi màggal boo laajtee góor dangay ngay defee ne ab dal lañ koy jox ubbil koom néeg muy sangoo ko tëdd waaye boo dikkee day mel ni ku ne tool ya bool yi ñuy def ca ginnaaw waañ wa ak cin fa lay am mbàjjam tëdd fa fa lay fanaan ba samaan set boo xamul sax boo dikkee da ngay defee ne ku yaram wi naqari moo fi tëdd fekk na booba dara jotu ko daa am lu muy wut rek te xam na mu koy wutee te fekk ko fa mu koy wut am na ko yàlla na ko yàlla dimbali dimbali nu leen yéen ñëpp bokk yëpp ñu ngi leen di sant seen taxawaay rafet na ndax fii bu ndikkee yéen lañ fiy fekk bu demee yéen lañ fiy bàyyi te këru gone la te gone ku ne xam na ne njuum da ca yomb kon yéen ñi nga xam ne yéen a fi nekk di ay mag nekk na góor a jàppale leen ba dara yàquwut ay jàmbaar ngeen ñun de nañ leen gërëm nañ leen ñu ngi leen di ñaanal ne saa yàlla mi nga xam ni mooy jubal mbir yàlla jubal suñuy mbir yàlla mi dimbalee yàlla nañu dimbali yàlla mi nga moom don moo am kartan yàlla na nañu kartan ba kenn ku ne liggéey wut nga am ko taam ko fa koy wute te muy sa njiglaay ci barkeb Serigne Touba ak Cheikh Issa Diène jërë ngeen jëf barkeb Cheikh Ahmadou Bamba barkeb Cheikh Ahmadou Khadim asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi sang si fi teew noo ngi yëkkati sunu kàddu di ko jël ci ñi nga xam ni yàlla dafa dogaloon ñu lëkkaloo ak ñoom ñu bokk lëkkaloo boobu ànd ko ak sëriñ Gora Saby di ko seereel sëriñ bi ngir jëmmi yàlla ak yonent beeg Cheikhul Khadim ndax loolu képp la ñu ànde woon mosunoo ànd ci lenn lu ñu nit di jàjjee ñuy seere nag tuuti ci jikko joo xamante ni sëriñ Gora bi amee na ko dina fore ci kàddug sëriñ bi léegi ci melokaanu woo xam ni ndaw ñi yor nañ ko fii di njabootam ak melokaan woo xamante ni sëriñ góoro yoroon na ko ci digganteem ak sëriñ yuusu ñu nangoo ci mag ñi ñu wax ñu loo xamante ni man bi ma ko njëkkee dégg su doon jëmm la damay wax ni tur wa góoro laa koy tuddee te ci ki ma ko déggee dafa wax ni sëriñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma moo ko wax bi nu ko laajee dëgg dëggi taalibe nu muy mel la muy gàtt gàtt wax dañuy féete ak kenn te wormaal ñëpp te góor loolu rek la ko ñëpp xam leen kenn ku ne xam nga ni léppam njenn la waaye kër gu mu ci dugg ngir jëmmi seexul xadim ku ko fa fekk da ngay jàpp ni fii képp la te fekk na lu guddi guddi lu mu root lu mu bari bari lu guddi guddi ci ndaal njenn rek la koy tuur muy jëmm joo xamante ni dañuy ñaan yàlla yal nañ ko yàlla fayal yokk ay leeram ci barke Cheikhul Khadim di sant bu baax njaboot gi doore ko ci paate ak sëriñ Moussa di sant bu baax barki euh, ñetti fan walla ñeent Siré dafa ñëw sama kër fekkuma fa mu xëy si dellusiwaat ak ñaq wu métti mun ma ñëwoon naa fi waaye dama ñëw ci turu njabootu Baye góor a gépp sëriñ Paate ak sëriñ Yuusu bàyyiwuma njaboot gépp ñoo ma yónni ngir xam lan ni nga mel ak Baye góor moo tax ñu ni naa ñëw ndax xam na ni yëg na ko waaye xam na ni lépp di Baye góor lu mën a doon lu nekk su doon yaa ko xewle Baye góor a noonu la koy doxale moo waral ñu yebal ma ma ñëw ngir bis boobu xam ni noo ko bokk ñun muy lu rëy lool di sedd xol lool di ñaan yàlla ci barke Cheikhul Khadim sa borom may leen wér ak fanul gudd njabootu góor gi ni ko sëriñ bi waxee léegi sunu meloon neneen dana nu jaaxal yow sëriñ Omar duma la boole ci wëllëre yi ndax yow yaay kilifa gi kon baatu kilif lay laay tekki sa loxo ngir tasaare ko ci njaboot gi te xam ni ñun noppal nañ ñu ndax bu nu meloon neneen dana ñu jaaxal te su boobaa tamit am nañu maandu bu toll nii bu ñu ci mënul dara it xam ni seen bàyyi liggéey na ba wàcc te moom faw mu jariñoo waaye nag fu seen bàyyi tegoon tànkam alhamdulilah rabbil alamin ña nga fay teg seen tànk muy lu rëy bàyyiwu may yuusu guddeeg bëccëg saa yoo waxee mun la benn baat benn baat bi muy wax bokk na ci li ma gën a ñor su ma leen xoolee rek bàyyi góor laa leen di laay gis muy lu rëy rëy kon bu nu toogee fii te daan ànd ak góora di gis ay jëfit ak di gis ay xeet yoo xamante ni sant yàllaa ci war kon sëriñ bi dinañ la ko seereel bi gi des mooy suñu jataay man ak góora ak moddeey seen fii ci néeg bi ñu toog ci suuf di waxtaan di waxtaan yuusu mii ni tëll daal di yor booba la ñuy doog a defal ñeenti téeméer yi daal di yor ñeenti téeméer yi ñëw nuyoo ko baayam bàyyi góor a daal di koy xëppaat mu jëy seen ni ko ñaanalal ma ko ndax lii musta dakk saa yu ma joxee loxo bàyyi gi sama loxo dara kon ñaanal leen ko man ko dina bari dina barkeel ci barke sëñ Bamba loolu yaakaar naa ni musu waru ko mën a fàtte ndax yàgg na yàggul bi ci des mooy seen teraanga fu mu yokku lu mu yokk man doyaluma barke si Ahmad Bamba damaa jóge ndakaaru maak sëñ Dieng Ndaw mii waxuma nag waxi par parloo waxuma waxi dara ci coobare sëñ Bamba lay waxe maak sëñ Ndaw Dieng Ndaw mii man maa jàmbat Macky sàll booba du président kër sëñ Touba gi muy woo ci jaarale ko ci ku ñuy wax Chérif Abdourahmane Fall Tilala mu woo ma ñu war a dem keroog ba may dem mag jëm ndaw ñii ñoo ànd bi mu yëkkatee xaalis lu toll ci ñaari million ak genn wàll ni nañ ma ko defal ci kër sëñ Touba gi bi ma ñëwee ma ne ko du ma ko yóbbu ndax bu ñu ko yóbboo leneen mën na ci am danga ma ko dañ ko fi bàyyi bu dimanche ñu daje ci kër sëñ Touba ga ñëpp teew ñu joxe ko ma jóge fa ñëw di dem ci sama tool yi ci kër garo fekk ko ci buntu kër gi mu toog ci mbedd mi ndaka mu ma séen rek yuuxu ma ma taxaw ne ko bàyyi góor dimbali ma rek dama ki may dafa am ku may joxe euh, sama jiw te ma nga may xaar maa ngi ñëw léegi kër galo laa jëm mun ma maa ngi lay xaar fii ma dem wiñ ko mu ni ma lenn rek laa lay doyee nga xam ni góor saat kenn du moom barke Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Bamba la gëm mun ma saa waa kër yii dañoo dajale ab xaalis ñëw jox ma ko ni dañ ciy jënd ciment ak fer ngir tabax ngir tabax bii ñu terrasse ko mañ leen liggéeyam sëñ Tuubaa du fi nekk mukk ngeen nekk fi def leen xaalis boobu dama koy jël dugal ko ci kër sëñ Tuubaa gi góoraa ma wax lii ma nga ca dëgg tey ma ne ko bàyyi góoro mun maa ma ne ko dox leen ko ñu def ko fi ñu koy def sëñ Tuubaa amul morom dañu doon raasi gësam nañu guy tàbbi na te bu dimaasee dinaa la ko jox ñaari million ak genn wàll yoo xamante ni mi ngi fi te incha allahu taala bu dimanche dañ ko indi ko ci kër sëñ Tuubaa gi kon bàyyi leen ñu teralee sëñ Tuubaa si sa kër gi ndax da ngaa liggéey sëñ mu daal yuuxu ni ma tiy san waaji barke borom Tuubaa Mbàkke noonu la ma ko waxee kon kooku bu njabootam nekkee ci aw yoon te ñu nekk seen i baay daan ànd ak seen i baay ñu xam ni fa ko seen baay tegoon alhamdulilah rabbi alamin ña nga ca te it gëm nañu dama koy faral di wax lépp laa gëm lu sëriñ Bamba waaye li nga xam ni man dama cee teg sama loxo darajey seexul xadim sàkkuwuma ji nag kenn gëm li ma ko man dong doy na ma man la concerné wax ji hawaïda alladina daamoo fii xidmatin wahab lahum maaraamoo man moo duggee la concerné barke sëriñ Bamba maa ko gëm ndax sëriñ Bamba wan na ma ko loole mu ma ko wan nag ci laa firndi leen njabootu góor gi darajey Seex Ahmadou Bamba ca kaw kat ca kaw ca kanam fan wu gudd lañ leen di ñaanal te mu ànd ndax seen bàyyi jëf na ko fi seeni ndey it nangu nanu ko barke sëriñ Bamba seen bàyyi jëf na ko fi waaye seeni ndey nangu nanu ko man damay wax ni su ma demee bay naan kafe Touba muy neex ci man may tàqamti ko man ci góor a saa bi laa ko laa ko xamee te booba kafe bareewul nii te soxna ye soxna si ñoo daan jël nes kafe bii di ko tàggat di ko booleeg jarak xorom pole yama maanaam kaasu dute buñ la ci xelel bu feesee waxuñu koy jeexal nga dolli nga kay la ñuy waxaat waaye kenn xalaatul loolu ci la dem ba ñun ñëpp tabarkàlla macha allah sans borom dimbali leen ko góor a ñu koy ñaanal yàlla yàlla na ko suñu borom yokku leeram te njaboot gi suñu borom gën cee teg loxo ak jubook bu wér suñu borom gën cee teg loxo wërsëg bu yaatu wér suñu borom gën cee teg loxo ak barkeel ci dara darajey seexul xadiim ndax rafet nañ ci njott bu wér a wér te xam nañu nit kenn du kenn du ji gerte di am leneen gaynde du juróom xar ala kulli xaalim nii nu mën a mel ni nu mel rek noonu lañu war a mel ma teg ci benn rek joxe micro mooy damaa ñëw fii di ko tàggu dem jëm màkkatal mu ko raw fekk ko ci ëtt bii mu toog ñu teggeel ko lal bi kii ni man ko man de bàyyi ko damaa bëgg a dem màkka damay aji insha allahu taala mun ma ma man ko waaw mun ma ciy san waaji man loolu rek la ma daal wax mun ma sa payut sëriñ Tuubaa ngay jëli te booba mi ngi ci tawat barke sëñ Bamba booba mi ngi ci tawat bi ñu toogee def suñuy waxtaan bay génn mu ne ma soo demee bul ma fàtte ci ñaan man soxlawu ma dul liggéeyal sëñ Touba ma dem màkk maa tànn sama bis ma ni dama koy tawaafal góor a billaahi lazi laa ilaaha illaa huwa ma tawaafal ko ba noppi parce que su ma musaana bu guddi musaana jot man bu ma demee kaa bëgg dama yóbbu sama muqaddimatul xidma ak samay tuhfatul mutadarrin fa laay nekk ba julli fajar ñëw tëdd bi ma ko tawaafalee ba noppi jàng samay xasida ñu julli fajar ma ñëw tëdd ci la ma góor a feeñoo nekk ci tool bu yaatu takk ndigam yorob boppam solub tengaade ma xuus tool bi di ko di xuus tool bi ko ci tool bi ma daal di koy nuyu ne ko saa waa ji na nga def mu ne ngi nii damay liggéey li Sëriñ Tuubaa rek muy baat bu rëy billahi lazi la ilaha illa huwa kon su fekkente ni loolu mu wax yàlla may ma ci ñu mën keroog ba ma nee cëpp fii jóge màkka yaakaar naa ne ci guddi gi laa ñëw yàlla dimbali ma ba ma teg sa teganteeg moom te dama ko saafante woon waaye loolu lépp xam nga lu lu ci gën a yéeme mooy njaboot gi mu bàyyi liggéey bi may liggéey li sëriñ Tuubaa boobu xale yi damuñu bopp bi si Ahmadu Bamba nee na wax ji moom du mën a gudd ndax waxi seede rek la ndax wa ma na illa bi ma alim na nee na sëriñ Gora Sabi nee na ñi fi wax ñépp wax nañu dëgg nee na waaye moom sëriñ Ahmadou Mokhtar Gueye mii moo ko mën a seere ndax moom moo daan ànd ak moom di liggéey nee na bala maa dugg foofu nag nee na lii nga xam ni moom la sëriñ Omar Diop wax léegi nee na sunu ñaari wajur yooyee nee na ko sëriñ Omar Diallo waxee rek rek la ame nee na foofee la ñu xamante nee na di fa wut lu baax neena di tarbiyu neena na Serigne Moustapha Gueye nee na di wéy juróom nee na képp ku dëkk ci turum njenne dégg nga turam donte xamuloo ko ndax daaray maam Cheikh ja nee na jawoon ca fa wax kër ma ci am na moom mi fa la ganee adduna nee boba do ngay nga xamni mam Cheikh isa jox nako ko wéy de boba jamono do booba jamono dong ya juróom ñaar fukk ñu ak ñet nee fofé la ganee adduna nee na foofa la nek difa wut lu bax ba maam Cheikh Issa xëy woo ko mu ñibbisi fii nee na ba muy jóge fii dem lagat nee na yóbbaale ko moom sëñ Ahmadou Mokhtar mii de waaye ba muy jógee lagan di ñibbisi fii nee indaale na ko de nee na googu wet moom foofu laa ci yem nee mu ñëw nag ci mbirum sëriñ Gora bi ndax seede nee na ki nga xam ni moo la xam kooku rek moo la mën a seede ndax ñun ñoo daan ànd di liggéey nee na bis ba nu njëkkee wootee xel koom nee na booba dañu tàmbalee ànd nee ba gor ba yegg ba ñu tàmbali koo béy gerte di fa béy dugub saa sunu wootee nee na mook góor ñooy ànd ak bàyyi wu nu jenn nee na sunuy dem ca bu njëkk ba ba nu koy gor nee na góor a sunuy dem nee na day luwe ab kaar cib xaalisu boppam nee na nit ña ñëpp dugg nee na sunu duggee ba mu fees nee na dana fekk mu togg ñam yu baree bari bari neena def ay fiir nee na toggi ginaar aj ci kaw oto bi sunu àggee foofu sunu liggéeyee ba sonn góor a woote tibbaate ñépp xewlu nee na loolu la nekke moom sëñ góor a loolu la nekke ba ni sëriñ Saaliwu wàcc ab liggéey at mu ne poste boo at mu ne mu def loolu saa su liggéey bi jotee nee na góor a takk na ndiggam nee na ci moom ni ko ah liggéey bi de jot na nee na ko man dey maa ngi waaj ne ko man dey xaw yow ci loo ne ni ko daal dala ma daal rek laa ne xanaa loolu du ko soññee rek bëgg ñépp ñu doon ci liggéey ba pour ndax liggéey li sëriñ Touba ci liggéeyal sëriñ Touba ci la ab taalibe bi yéene ba daal ñu ñëpp nañu bokk fabu fas yéene liggéey bu demee itam laxasaayam ga nee na sëñ góor a ko tikki benn yoon fu sëñ yuusu fanaan fu nu ko mbaaral fa la góor di fanaan nee na ak sëñ Seex Ture mi sëñ wax léegi ñoom ñett foo leen Musaa fekk bu dee guddi ñoom nga fay fekk bu dee bëccëg ñoom nga fay fekk nee na loolu de laa mën a seede góor nee nee na kenn ku ci nekkit ku ne la nga xam ca moom nee na loolu rekk nga ca man a wax nee na loolu de la xam ci sëriñ góor kon sëriñ bi ñu ngi lay sant di la ñaanal yàlla fan wu mu ànd ak i xéewal ak jàmm ci barke maam Cheikh Issa Diène nee na sëriñ bi ñaan googu ma ñaan day ci sama biir xol laa ko tibbee àllarba dañ may dalal alxuraan sama baay jàpp ci sama loxo bii nee na mu sukk ci kanamu maam seex Issa ni ko Ahmadul Maxtaar sama doom ji de laa lay jébbal nee na maam Cheikh Issa ni ma topp si daa bind ki sama jëf yii ni ko Moustapha delloo ko te boo demee nga dalal ko sa doom sañu si ci dudul mu jàng rekk nee na kera bis boobee la ma bàyyi dalal baasiin mu jërëjëf gi sëriñ bi nee na mi ngi si Ahmadou Mokhtar mu ngi sant ñëpp وجعت للمختار كل يوم قدم أمداح أزال لومي إلى النبي وجعت كل ليل قدم أمداح أجل النيل ردي أني من له حقائدي ومنطقي والفعل وهو قائدي دفت الذي قرايا لي أتابع وقال لي ما لم يري الأقطاب وجه ما لا يراه خيري معجزة تبقى لأذن قيري إلي قاد الله في الدارين شيئا به سيرني جارين نفعني النافع نفع الفاخا وقد مها أن تؤجئي النفاق المكرم بجاه من سماته المكرم لي خاد يمنى المصطفى ما خاد بلا أثر مرتديا فالخاد لي خاد ما يكون لي سرورا ولي لا يوجه القرورا هدية الإله والرسول ليتوجعت وللنزول وجالي الليل والنهار خير إماما بلا انتهار إلا يخاد من له الأيام ما دونه الصيام والقيام لا يقعد من له سرور ما دونه طهور وتطهير لي يقول من له سنونا ما ذي عظيم نعم قليا وجاري ما لا يزال أبدا سرور كل مولد مؤبدا خنا أزا خطا وحمدي حل النبي خير الورى آمين يا رب العالمين إنك أنت الوهاب ودود كلي أبدا بالود وجهني أدرر وكدي الماء غفور المذنبين اغفر بالجاه المصابة لكل من أعبني لوجه مالك الزمان نافه بالفه كل من تغلقا يا من هديني بالنبي وأدلقا أسألك الجنة بالمختار لمن يلوس بيسات التاريخ لوجهك الكريم هب لي كل ما طلبته منك لنا بأني قل وخب فائز بالمني هديتني هداية الهداة وليقد من يتزادات لينتني بالمصابة القلوب ولي بكم توازن المطلوب يبدو لي كن فيكون منك بما يسوق الرديد عنك يغو يقول للمختار والآل مها سابه قرن يقيني تمها على الذي رافقني في سريري صلاة باخ ليقول ميري صلاة باخ ليجود ميري اكتب لمن أخذ ورد يا كريم مستعملا بصواب لا يريم يا ربي هل المريدين ما في أصل كلاسهم وسبلت ما ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمزايا يقبلا اغفر كل من الي مالا وأن يده لا تسرد مالا نفعتني فانفر بي الريالا يا من هوى الاميره والأخيالا كن بما يفوق كل الزن يا خير مخن متحف بالمن مد سلامك بخير ودي لمن مها هني ازاك الكدي نال الجلال نال الجمال لمن تعالى رب سمائي أكرم بخير هامي إيالي راجل رجالي حسن النسائي نعم العظيم نعم الكريم نعم المقيم للرؤساء كاف القرور ماك الخرور مهت البرور بلا النزاع بني الديور مع القيور باقي سروري للجلساء لهم تداري بعد النجاع هند السباري وفي المساء صلاة ستة بمتن ستة تأتي بتة ما اعتزائي هل صلى رب أجل ففاق كل في الأنقياء هل سلم ولم رفاقا ولا التواسم في الأذكياء هل العتيق باب الطريق أخي الوسوق كل الرداء هل الوزير سيد البصير رد الخبير مدير القداء هل الدياء أقل غيالي خير الرداء مثل البقاء على القريب ليس المرومي رد المجيب مع ارتقاء هل الصابة سوي الإجابة يوم الكابة رد الصناعي نيم الرجال لهم مجال نيلو ونانو وقت الغناي رد السمين على الجميل يوم الخروج يوم النداء أرباب خير أرباب الدير لباقي ميري أريد داي كل سجاو له اتباع له اتباع وقت الرفاع نعم الكمات نعم الأمات هد الأمات بلا اختباع بهم أبوت وما جفوت بهم نفيت سرفتراي تنمو لخير أداء دير بأبن خير ما يجراي فولت أمري للمبقي أمري ما أغلي بدري بالامتراي إني أقول ولا يميل لمن يزول مع الجراي يا ذا الجلال يا متعال يا خير والي أجب دعائي صل وسلم على المكلم والدرية وصل بهائي هل الرسول باب الوصول للنيل سولي أحمد رواي سل الدوام وزد سلاما واذكر قلاما لوبناء يا ذا الإرادة يا ذا الإفادة خل السعادة لبيت النايم قنيت دا سنيت دا سنيت دا بلا غناي سفقت باي بلا جباي طيب ازاي طيب خداي يا ياسر وجودي كل بجودي وجل وجودي فوق اللداي هبلي ودادا كل المرادا يا من أفادا بلا كراي هبلي برورا كل الخرورا حبا سرورا لكل راي واذكر كلامي واغمد كلامي بلا ملامي ولم تراي سجل لساني نور الجناني سفي أماني وسن براك سفت ديرا لقد ميرا فلتكفي الجورا لمن يراي عن ختياري من الدلال وبالهلال خلت سراي تمي تابا كل الكتابا وبالمتابا يا ستراي يا خير ربي خير مربي تعب قلبي بعد ابتداي سلي وسلم على المتمم وكل يعصم بلا انتهاء جئت بسلقين ساجرا لك بي وقبل لي قربا لك جئت بسلقين ساكرا لك بي وقبل لي خطفا لك زند خطيبتي دي سكورا ولم تزل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما صابت وكل ما أردت منك الوغل آدتني يا رب مكة بارتني يا رب في غرابي وقريا وجدت بالمواد ملكني بكونك الكريمة ما قاد لي تبصير وتكريما أمتيت من القلب أنسى كل ما مدى من أجر نعود سلما كاب أني لكم الآن بمال خير ساق كل من جاد أكرمني بخون والله الأعاد ربي ولم يكن لكم أمعاد ناجاني الله المكرم زمان تناجي ثور يخجر المرجانا والدر والياقوت والسجانا الواجد الخير من البانان كوني له عمدي بما استبانا تركت ما كان لي بالبين متقيا ما عند من لي يقضي حاجة لنا فتاك وخاب يا رزاق يا ملكي لفتا وأبلي وارزقني بكل لنا ضيقي أذل آجلا بالبذل مع مدد حتى أقيم للدين الله أركانا يذجاين طوبى ومن وقني أذى الورى والتدب لي ثم إن كان كسم والرادي والواو بلا مسارك لي ردم وصلي بتقديم آثرة محمد ولد لي فائقا بانا ديني دين المصطفى لا غيره اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما يسر بكم جملة المطلوبات وليسوق ما فاق مرخوبات يسر إسابنا ويمر ربنا كتابنا هناك والكفر بنا يسر لي الأسير واليسير ورد لي يا خديرا يا من متيت قل الأمر كلكم قد قد اجتي كن لولا ما نال أهل الفضل فضلهم ولم ينل مجدهم أهل الولايات لساك خذ الورى ترا وأفضلهم لولا لم يغلق المولى القلقات كرب مي تالب الخرور نوال برم دروكم كمبر anda yoro nga naan ko ñaanal dappeel borom darub gan am na moo lay appal xanitu billahi anil arbaabi wa bi muhammadin anil arbaabi yan nañ ba wax duud wa ko antal pare ba mooy borom tawhidu sax na fa ndar weeru diggee ko gamma ba mu xëyee la xëy diramu waa ko mudaasiri la tabbee mbeef ma foofa la motalee aliru nirma waaye yow yaa xam ne mun dal mu ko ne فذكر التسليم على المصطفى بقلب آله وصحبه الكرام فكله بالنجم سعى خير المرام ومن تكاثر وعبد العصير صلح على من يطري بالنصير فيه بخير آفة ولا قدر وسلما عليه مدين القدر يا أي وهبي يا مانع يا خير ما أرجى حد صانع يا من له خير من الضرر لقد كفيتني الباء والقلم صل بتسليم بحق أمته يا من كفاني ولد أمته على النبي محمد والآل وصحبه في الحي والمال يا مقضي النور بلا عقول صل بتسليم بحق الفيل على النبي ورسول أحمد وآله وصحبه أحمد ما أنزلت في قريش من سورة صل على قريش سيدنا محمد وسلم وآله وسلم وكل سلم من كل ما يسوء أو يضر رحمن يا رحيم أنت بر سنور يا نبي أنت عادي يا محيي من قبل زاد عادي صلي بتسليم على خير ورائي وآل وسلم وكل رضا وليها في كل شيء نفعا ما خداك وكافي رفعا يا ربنا بسؤال ماهون وجمل خير ماهون يا ربنا حبل من حقك تصري من حياتي ووجود كاسري يا ربنا ولي خير كافرين بلا مضرة بحق كافرون وارث يا بديع أنت الباهي لك أراضي صبر كاتب أخي سليم تسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرسلنا وآله وصحبه ويغفروا سنضمن الخيرات من خير سلوك وجعل به سنضمن الخيرات جميعها يقوم في الميدان بسورة الناس والطب الكفار أفئدة المصال والأكفار إلى سوى النحو وبالإخلاص جلي إلى الجنات بالإخلاص لكن يا صبور صلي بسلام على الاستيفاء بعصم كلام سيدنا محمد والآل وصبي في العين والمعين وتكفني بأنك صورة الفلا وصورة الناس أتى يا محلا فقل صلى عليه بسلام يا لي وسامي باقي السلام بكل حرف من تين حروفي مساءة ينمو بها محروف بكل حرف من تين حروفي مساءة ينمو من ينمو بها محروف سبحان ربك رب العزة عما وسلام على مسلم والحمد لله